à Mbourkat euh, département bu euh, Thiès d'abord naka la ñu mën a euh, qualifier acte boobu nga xam ne def na ko gannaaw décision bi nga xam ne jël na ko très récemment muy dakkal lépp lu jëm ci construction yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci yenn journée yi. waaw damay d'abord di ndokkeel tey waa Touba njabatub sëñ Abdoul Ahad ci màggalub sëñ Abdoul Ahad bu tey. jiital euh, ci euh, sëñ Sidi Abdou Lahad euh, sëñ ñoom sëñ Daam Atta ak jaboot gi yëpp li tax ma tàmbalee foofu xam na lu nan lañ daan wooyee sëñ Abdou Lahad le bâtisseur. dama ñëw fekk suuf bu amul lu bari mu def ci lu bari suuf sos ñu ko joxoon amal na ko njëriñ amal tey njëriñ ñi dëkk tuubaa ak li ko wër. L'état de je corrélation, ou je vais exemple, je vais que 100 hectares, 200 hectares, je vais pas me faire de Je de faire une case. Je vais faire 10 hectares, de vais 5 hectares, de vais faire 1 hectare, de vais Mais quoi man, Pour man, euh, c'est criminel. xamul luy criminal mooy koo xame ni da nga ñëw ñu yëkkati suuf su ne gàññi jox la wala nga jël suuf su ne gàññi téye ko sa bopp di ciy seddalee nu mu la neexee parce que nguur nga bokk yëkkati ay hectares yi hectares ne ni waa lii xam nga lan lay nuróol waa bii man la tippoo naa bii gis na temps xale oto bu romb nga ne maamoom bii tippoo naa bii maa jël bii loolu moo am ci suuf si ci réewum Sénégal ci ay nit ñu nekkoon ci nguur ku ci nekk naan ci fi ma ne comme am na assiette foncière boo xamee ni dañ ma ko jagleel wala man maa ko war a yore naa ci def lu ma neex naa ci cëru ba pare cër ci ña ma xam euh, mbirum corruption dugg tey am na président dem fi mu dem ña mu àndal na leen saytu amna ci kenn wala ñaar wala ñett wala ñi wër buñ doon suuf sañu ak nañ ko euh, président c'est quelqu'un qui connaît le le le foncier ndax peu de domaine la xam na la suuf nañ koy joxé ak na ci cëru bu def visite inopinée ci bërëb bu parce que xam na fa xam la ne xam lañ fay nëbb mais ñamu àndal je le répète na leen saytu ñamu mu àndal su ma nee ñamu mu àndul du du stafam de maanaam euh, ministre mais ña ña mu àndal kan la fekk gouverneur mu ngi fa préfet mu ngi fa maire mu ngi fa. gouverneur u Thiès. cadastre ñu e e. am na coow lu ñuy coow. di ko tudde moom. Mhm. gouverneur u Thiès. Mhm. dëgg laam du dëgg nañ ko saytu. maire u nee na ñu yëkkati nañu Vox Populi wax na ko nanga nangami euh, parcelle jox ko kan la ko sédd dañ ko saytu muy Thiès ville muy est ak yeneen ku ci nekk ci réewum Sénégal dañoo jëloon suuf mu mel ni ku amul suuf wala ku sàccul suuf pour yow tekki woo. waaw daa bari loolu te Kër Moussa rek Kër Moussa ñetti hectares lañ non non quinze parcelles. cent vingt parcelles yi ñu joxe Kër Moussa Kër Moussa rek. ci quinze parcelles mais kan lañ jox parcelles yi. man li tax ma ma président il sait ndax fa mu dàkk fa mu bokk mais bu mu bu bu mu gratter surface c'est-à-dire bu mu yam ci li feeñ la partie visible de l'iceberg comme on dit nañu dem en profondeur moi je suis pour la reddition des comptes ci côté bob parce que mais pas bo amé souf tay constitution mo la né da nga am sañ-sañu am kër wala am tol bo meuna bay dund ci dundal ci sa njabot bo ko a sax ci ñeneen ak ñeneen on parle aujourd'hui de sénégalais yu am souf am ay européens ak ñeneen un dañu yëkëti jox

parce que nous ñoo que nous ñu non président alors que bo xolé seen ñu ngi hectare yo xamé ni bayu fa fa. li tax ma ci le bâtisseur Cheikh fait mi nga xamé fait parce que c'est un exemple à suivre ndax dafa ñew fekkul dara mais ñu mais jëluko mom le ko bopam da ko jël plus de 120 000 lotissements lotissement la def Touba ci ay ay nu bien ak qui ak yeneen yoo xam ne Touba tout simplement parce que on lui a remis du foncier mu hérité du foncier mais il a def ko moomeelam de ko def ko comme ceux qui étaient là et qui ont pris le foncier xam nga booy l'histoire du product combien de domaines agricoles communautaires nous avons fait? jox ay nit ñu mën see tedd lan

il te suffit de faire une demande yóbbu ko fa nga ko ñu saytu ne ni fii am na poche bu ñu mën a joxe ci domaine national la bokk ñu ne la jox nañ la ci 150 mètres carrés ba deux cent mètres carrés waaye bu dee man maa mën a am jafe-jafe am deux cent mètres carrés kay am nangami hectare ba pare toog non c'est c'est c'est hyper hyper hyper grave à mon avis hyper grave

mais di nga mujj doon sax chef d'entreprise parce que di nga jël sa kër ga peut-être a ko deuxième troisième étage yow sa bopp mi nekkoon locataire ngay far di louer ay nit ñoo xam peut-être seen loxo jotagul seen ginnaaw yaa ngi créer plus-value donc vraiment qu'il aille jusqu'au bout et surtout qu'il ait la main lourde arrêtez na lu bari et il a dit hier et je pense que c'est important nit ñi xam ko dafa ne dama arrêté le temps que ñuy saytu ku am na nous ko parce que amna na xamné euh waxnako dañuy bëgg rapidement daw pour ñu joxal leen bay wala titre foncier parce que xam nañ li ñu am bo xasee ba am bay wala titre foncier sur le plan légal day fait ñeneen nit ki indi suuf si mais même état mo mën réguler ce ce ce problème et on aura finalement ou enfin une solution parce que le président l'ancien président Macky Sall disait que sur 30 dossiers une ñu koy 25 yi foncier peut-être que bëgguñu woon lijjanti lool mais ni ni ni. ah aywa en tout cas bravo au chef de l'État ak li mu def euh, na dem feneen am na yeneen i bërëb yoo xamee ni bu fa tegee tànkam dina yéemu de. d'accord. maa continuer mu bàyyi monsieur